ba ci dimbalé nit dimbalé nit lu sawaron di def la té da koy dimbalé ngir yalla ak demi seigne touba li ma leen ciy jox tegtal de taarixu jumaa ji yeen ñep xam ngeen ko loolu seigne touba Tuubaa won woon seigne Modou Moussa tambalé ko wante Cheikh Mouhamadul Fadilou eggale ko eggale ko ci 1963 ñu julli ko ak jumaa ji ni mu ñore woon sëriñ bi waaye bi sëriñ Abdou Lahad ñëwee fexewaat na ba ñi nga xam ne ñoo judduwaat gannaaw bi ñoom ñëpp seen ñaq demaat na ci jumaa waaw loolu di du rëy du am solo ndax jumaa ji bi mu ko yokkee ci jumaa ji la bokk te ku sa ñaq demul ci bee dem na ci bii mu di defaat defaat fi yeneen liggéey sëriñ tubaa yoo xam ne bu ci ne da daan taxaw ni kat daa fas yéene moom diirub lim fii lim fii nekk Serigne Touba la fas yéene liggéeyal fas yéene lu mu am def ko ca te ku ko joxit mu defal la ko ci te noonu it la ko daan doxe doxale ndax maa ngi bokkoon ne ca daara ji ñu ngi nii ci déwén sa ñu yokkaat ko mu def ko def naa fukki daara ak ñett waaye loolu lépp ngir bëggoon a liggéeyal sëñ Touba ak bëgg ñaqu ñëpp dem ci liggéeyam sëñ Touba bu ñu bayee ba àggal ba ñu peese ko ba noppi ñu ñëw ne ko nangam la nangami million la mu daal di ne kon da koy daal def ci liggéeyu sëriñ bi daal di woote tàmbali loola daa ne lu waaye indi ma defal la ko ci ñu ne ca loola ba mu kay kaay leen nu ubbi loolu nu doon liggéeyal sëñ Touba. Hmm? ci yokk jumaa ji ci kër sëñ Tuubaa yi ba ci daaray kaamil ak yeneen ak yeneen yu mel ne yëpp mu def ko liggéey sëñ Tuubaa fexe nag te semence bi nga xam ne bu yàgg doo nga leen judd ñun ñëpp dem ci kon kooku bëgg dimbali nit ak mën a labiri mun te weesu loolu yaakaar naa ni quatre cinq noo ngi bay gerte gi lépp dix mille tonnes trois cent tonnes fukki junni bërigut ak ñetti junni bërigut te santaane wunu ah, te yorunu woon lu ay nag kese yorunu tracteur yorunu dara ah. loole yëpp noonu la ko defee moom ci ci liggéeyal Sëñ Tuubaa bi nekk fi loola nekk fi loola nekk fi loola ndeysaan ba ni mu demee àjjana waaw waaw waaw moom la ñi mbokkal Sëñ Tuubaa yaakaar naa ne dina jàpp woon Sëñ Tuubaa rek waaw ndax bi ma fàttali ko am na tóoru dugub yu nu yoo xam ni suñ Modou Aminta Fall mais moo ko bojj si woon bañ ko bojjee ba àggal danoo daal di woo defal nob di suñu fab ñaar téeméeri bërigo yët sëñ Abdou Xaadir fab ñaar téeméeri bërigo yët sëñ Saaliwu fab ñaar téeméeri bëri ko yët ci sëñ son yi def naa ñi nga xam ni doomi sëriñ bi yu jigéen lañu woon ba ñu mu topp leen ku ne seen toon seen toon waa kër soxna moom yeeg waa kër yëpp seen toon noonu la def tool ya ma mu mat waaw leneen la ca des nag te te diggam ak ñoom ci wàllu dund yi kooku Ibra Gaye yore woon hmm? xam naa kenn ku ci nekk defe naa ni la daan nekk sa kër ci ceeb daana leen ko jox yeneen ya koy jagalit daana leen ko jox waaye na loolu bugguma caa wax ndax ñeneen la ko séqaloon waaye lii ma leeroon daal nga xam ne maag doomi si moo daminte fall ñi ñuy wax Assane Fall dugub yi di ko roñ di ko leer na ma nañ su ma soñoon lu ma ciy waxit noonu lay demee ak itam nag ñi di ko gane si suñ Abdou Khadir li bu ma saan ñëw daa gaaw la fay ñëw dibéer altine talaata atal ba alxames ah, mu doo ko yeewi mu dem ndax xam nga jumaa jee taxoon waaye bu ma saa néeg bi mu ko dalal buy dem lépp la kanaan na demaale adde yi suñ Tuubaa la waaw lal yaag fauteuil yaag tapis yaag yëpp da kanaan adde yi suñ Tuubaa la na dem waaw daayira am na bu nekkoon njaareem ñu daan indi ay ay salaat ay xeet yi mbayum noor yooyu daayira ba bu masaan ñëw loolu leen daa séddale leen ko juróomi cër kër sëñ Tuubaa kër kër waa yi gu ci ne ñu yóbbu ci bi nga xamee ni dimaas ji mu fi mujj te Baara Ndiaye jóge ci moom sekk ma ca tool ya ne ma sëriñ bi nee na boo wàccee nga ñëw boo Baara Ndiaye mi ngi yor ay kees yi fur wi yoo ne da ko doon yëtloo waa ko suñ ko yi. koo séddale woon ne ko yëtam bii sëñ Abdou Khadre bii sëñ Sall bii sëñ sëñ sooy ah mu ko séddalee noonu it boobu lii ma la baar euh, baar ñëw ne ma sëriñ bi neen kon bu boo wàccee nga ñëw ci maa ñëwee lan toog ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba na ma ñaanalee ma ñibbi bi quatre heures jotee laat tuddi mii di jàng wolofal yi ñëw ni ma kaay wuyu sëñ bi ma defee ne mbirum tool yi lay waxtaanee man ma ñëw fekk sa sëñ sooy waaw ndekete booba bi ma ñëwee ma toog suñ sooy ruuxu dara mu woo maak sëñ laat mosam mii mu toog toog ba yàgg sama xel dalul ma engage nag tuuti sëñ fan bu nekk ko ah waaw sëriñ bi lu xew mu ne woon daal dañoo ñëwoon ne ma sëriñ bi xaw ma daam lu ko daan xaw ma tension la xaw ma ay ñaan yi ma yoroon yëpp toppatoo naa ko ba ba jël ko ndeysaan ñëw waaye bi ma rek fekk naa sunu borom def ca dogal fekk nun timis bi ba géey yëpp mi ngi ko toog di ko waxtaan ak man waaw lu ca bari xam na la nga xam ni waxoon na ko de ba mu toogee ne man de Sëñ Tuubaa laa fas yéene nekkal xam naa ni adduna moom lu mu amati ci man da koo sàcc te su ma ko dabee danaa ko ba jot ko nangu ko loolee ci la fi nekkee woon ci la fi nekkee woon ba ni mu ni mu fekkee sëñ Tuubaa waaw loolu biir na ñi ma fa bokkaloon nekk yëpp waaw moom ñooñu de daanañ fi ñëw ku ci ñëw mu gànnaale la gànnaale gu rëy rëy gu ñuy coow waaye day wax que diwluma ci leen lu won leen sëñ Tuubaa rek daa ci jublu li nga ne liggéey rëy rëy loolu la ci jublu moom ci boppam it daan toog ba yàgg mu dem sekki leen bi ci bi ma ci mujjee fàttaliku mu dem fekk sëñ Abdou Assis si ba mu ci jógee gannaaw bi la fi Cheikh Tidiane ñëw fii dañ euh, dafa dem ay numaa bi maanaam sëñ Abdou Assis daal di woo ñoom Cheikh Tidiane ak si ñëw rek ñëw fa suñ fa dajee ba yendu ko gan ba ca ngoon kenn ku ne jël mikoro bi di wax ñii di taarif ay way ñii di def lépp di def dafa def ba ba fab micro bi nag yët ko moom <laughs> mu nuyu leen gërëm leen ne leen nag ma dama damaa bëgg féetewoo jëf te bañ a féetewoo wax waaw loolu loolu laa di wax rek moom waaw waaw kon ñoom it diggam ak ñoom la ca waroon lépp lépp lépp def na ko ca maslaaga ak lépp wan leen këy sëñ Tuubaa ak lépp waaw ndax xam ngeen ne bi mu fi ne kenn yëbul yoonu Touba yoonu Murit. kenn yooyu yëbul leen ku ca wax da wax loo xam même ñi bokk ci Murit geeg ñëpp ñu mën a doon kenn ku ci ne booy wax da ko bàyyi xel séddu ko ah wala lu ko lu ko defee moom dina ko lijjanti waaw daaw tàngal nu dara. lu mat a euh, ku ku ku ku ñemoon responsabilité daal ci li nga xam ne moom la ko yàlla ak suñ tubaay dénkoon responsabilité bu rëy la ci ne ko sàmm ko ba ni ni mu leen fekk ñoom ñoo ñëwee moom yàlla ak suñ tubaay nga ko dimbale ci làmmiñ nga xam ne ku ma doon ku dee dalay ruus ba loo boo defee mbir bu dana ay waay yow di muy bett nga ma ci lii nangam nangam loolu xalaat xalaatutoo mukk bu baax dina tukki nga defati ah loolu yàlla ma na ñii mën nañ ma ci seede ba ko ne tuut tuut tam bu jooyee ñëw ne ko kee ma jooy la woon a nangam nangam ay tin leen ma ci gone yi gone yi nii lu mu tuut tuut jëmmi bàyyam la fi taxawee lii la lay wax lu gone ko tuut tuut bu dee juróom-ñaari at mu jooy jooyee métti ne ko lool te bu sañoon kenn du ko defati ndax nañ la fii ne day yéen waaye man ne moom day euh, euh, jëmi bàyyam la fi taxawe mm-hmm. te nit day bu da tuddee doom waxati waaye mu yëkkati ko jox la ko moom wàcc na yow yaa des loolu daana ko wax defe naa ne am déet yéen ñi woon ci daara ji defe naa dégg ngeen loolu ba tey mm-hmm. loolu xam toogee diir ba dégg ci lu ci wut a dégg mm-hmm. ci buggutoon a dégg loo xam ne xam ne ni jaaduwul ci dëkk la daal di bind ci kayitam yii ah signaloo ko waa Kër Sëñ Tuubaa ku ci ne daa wax ba fa yow mun la signal ku fi defati sàngara wala nga defati fi carte wala nga defati nangam nangam ñu jëflante ko ak yow ba am nappee daawal bi di ko waat ni nag dëkk bi Sëñ Tuubaa bi man sans laa ci gar ndax nit du baayam ba pare bu ko ëpp fulla loolu du ma ko nangu loolu daana ko wax waaw tarbiya nag moo nekkoon fee moom ca Touba Mouride waaye ñaare alxuraan yi ku mu bëggaan def nga def ko def dafa indi la kër Sëñ Son bi wala ñu yóbbu la fu mel ne kër Sëñ Asa si googe wala sëñ doomam ji ñuy wax sëñ jiili bari na ñu bari moom daan na ko jox ñu ñu ñu yoree njàngale meeg yooyu waaw waaw waaye fee moom lu ci ëppoon tërbiya baa fa ne woon waaw Daaru Salaam mbokki barke gi 1945 la ko sëñ Mourou Moussa joxoon ah nekk be quatre euh, euh, soixante huit bi sëriñ Fallou demee soixante neuf la fa delluwaat fab ko nag jox ko sëñ Sidi mais mu yore ko boobaak léegi moom mu desee Touba bi léegi ndax dani ginnaaw léegi léegi yëpp sëñ Touba la te day bari ñu koy soxla loolu mun a dem fu sori ah di sonal nit ñi nga def ko na nekk fii mu gën a jege ba moo tax booba jamono booba nag li ëpp ci daara mbay ji moom fii la féete waaye la ko jiitu amoon ay daara yeneen daana bay mbaraan gi daana bay mbajaan na bayti dia ay kër ma xujja ay yu bare bare moom naka jekk daal ba mu ba mu ba mu waaw daaray kaamil moom sëñ tubaa la fa doon defar këru kaamil ndax defe naa ni sëriñ tubaa jamono bi nga xamee ni jàng na ba noppi defe naa dafa waxoon sëñ am mu woo ko fa mu ñëw fa ba mu ñëwee defe naa ni te na ma euh, déggee yëkkati woon ab kaamil jox ko ne ko Abdou kët mayuma la kaamil bi dama la koy lebal loolu la ko wax xam naa ma ba mu demee dema dema dema ba xelam dem jaloo la mu fas ko yéene fay këru kaamil gii waaw loolu moo rek sëñ Tuubaa la ko la doon fay ca kaamil boobee moo koy joxoon waaw sëñ Moussa bi fi ne woon doxoon diggam ak ñooñee ak kañ ndax Karim Fall ah diggante woowu yi ceeb ñoo ko daan dox ak a def yëpp xam nga it dañuy bañ a doy war di dugg ci luñ la dugglowul tax ba nu dem lo ci dara ñu yëm ci dara ci rek même ministre bi nga xam da la yor mbirum bay mi suñu mané nee dana fi ñew ñu ñëw ñu ah, wara and mom moom wëri tooree ya. dama ñëw tubaab la xaar ku mu ñëw naan ak ministre bi bu ñu wër wër wër wër tool ba mu wër ba taxaw ba laaj limi laaj ba ñu jëli siwaat ba tubaabelal ñu dugg ñun ci biir ñu di leen bendeel man wëlbatiku na man dellu ci tool yi ya, wala ma dellu sama kër lén de ma sama ko wax te it yaakaar naa ni loolu ci fu mel noonu rek la war a mën a bawoo ak takkusaan nu toog fee ca tubaab yi maa ngi moom xam naa laay boobu ñu naan wala tastawil xasana xasanatu wala sayiatu idfa billati hiya ahsan moom la ndax na ma ko waxee dani ma nit de bu nekkee ay noonam ay fexe ba wet ga gën a rafet moom na ngay woon noonu yi buñ ko xamal geneen wet gu safaanoom kon mooy idfa bi llatii hiya ahsan ah waaw ah. isali si baynaka wa baynahum hadaala ah. waaw mu ne ma noonu noonu wax waaye nag la ma wax dafa jafe ndax ne wa maa yulaqqaahaa illaa ko mën a am wa maa yulaqqaahaa illaa zuu hazzin ak borom kii ah. waaw xanaa jiital Pastef rek njëkk borom màggal gi muy Sëñ Abdou Lahad sédd ko wàllam liñ koy njëkk a séddale jox ko addiya alquran li waay man jox ko ko ci xasida yi jox ko ko ci salaatu ala nabi jox ko ko ci istixfaar yi lu waay man doo la ñëwal sa bopp nag boo ñëwee loo mën kii berndeel ak nit def ko ngir yàlla ak moom da xam ne noonu la ma ne woon a defal gan nga fas ko yéene defal ganam yi ndax ñi ñëw ay ay ganam la ndax ah, ñoo tax mu ñëw waaw su ko defee nga fas ca la nga ci bëgg rek su ko defee la nga ca fas incha allah da ko gis ñu góor góorlu rek te saa bu ne bu nu xëyee bu ne nun ñu ko yaakaar ak yéen ni ñu ko tuddee kenn ku ne boo xëyee jëlal jëmm ji ne cëpp ci sa kanam ah, la nga xam ne boo jàkkaarloo woon moom moom ngay def nga góorgóorlu ca loola la nga boo jàkkaarloo woon moom doo ko def bu ko sa xel xalaat waaw yàlla nu ca yàlla ak sëñ jàppale nag ci barkeem ak baaxaayam eh, ak liggéeyal ba mu liggéeyal sëñ lépp sëñ Tuubaa fay ko ko waaw te nun itam mu taxawunu ci waaw barke xam nga man sama ndey bàyyam masurum la tuddoon taalibe la woon nag ndax moom la sëñ Modou Moussa toppaloo topp tooloo woon léegi euh, kii jumaa ji kayit yi ah dégg nga mu nekkoon ca Ndar sëñ bi jël sama ndey indi ko taxal ma ci dara tey sëñ Tuubaa ji kon kooku lu ma am sëñ bu ah lu ñu ma defal ngir sëñ Tuubaa sëñ Blaat bi yàlla dogalee ma dem dem ba gisatuma ko it ginnaaw sëñ si di moo ko fi loolee dama koy mottali ci moom waaw loolu day moonu boole nen jëmi Sëñ Abdou Lahad laa koy jàpp fas yéene ànd ak moom na ma daan dégg Sëñ Abdou Lahad rek waaw waaw ñaan yàlla yàggal ko fi lool waaw yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax yàggal nu fi ci ginnaawam waaw ci barke baayam bu baax bi barke maam yu baax bi suñ waaye yéen ñi yàlla àggale seen i yéene seen Tuubaa may leen wér